ñu am jàmm di tàmbali ci nuyoo bi ak siyaar bi sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg te ah, di siyaar njabootu sëriñ Tuubaa bi yëpp ak taalib yi yëpp ñu am rek ñu bëggoon a tuuti ci ay kàddu ngir xew-xewi jamono ak màggal gii ñu génn li ñu ci gën a soxal nag mooy wax yi dafa bari ak critique yi ak manam surtout lu jëm ci walu ndox mi ndox mi andi na fi polémique bu bare bare bare bare te loolu yépp lenn rek moo ko waral ñi dañuy wax ngir bëgg a defar ñii di wax ngir bëgg saboté saboote te loolu yëpp ay leeral da ci am solo ndax su dee da nga ne taalibe nga yaakaar sëñ tuwa di fekk si sëñ tuwa ci dëkkam bi ak njabootam bi wala nga ne ab talibé nga waaye danga dëkk ci dëkk bi yaakaar naa sooy wax ci lu jëm ci mbirum Tuubaa walla lu aju ci njabootu Sëñ war ngaa seet bu baax la nga cay waxe ñoo ngi dégg lépp nag waaye nag yooyu yëpp tey am na benn xew-xew bu am fii ci dëkk bi ñu nekk muy Baxdaad muy Baxdaad bu sëñ Abdul Xaadir Mbàkke moom Sëñ Tuubaa ci forage bi nga xam ne yàlla def na bi màggal gi jub si am na ko fa dem génn ci lenn ci teewoo ya fa nekkoon daal di koy fatt ngir bañ yenn gox yi am ndox loolu nag xëy na baxtaar rek da cee feeñ waaye boo xoolee xay na ci biir dëkk bi bari na ci Tuubaa foo xamante ni bii noonu la mel yàlla subhaanahu wa taala tey def mu weeru bi mu ñëwaatee di ko defar ngir bëgg ndox ma nam meloon mu melaat ko far dëkkandoo yi gis ko ba la ko cay fekk fekk loolu yëpp na tey dafa am lu muy wone li muy wane rek mooy bi nga xamee ne yàlla def na ñu génn ci màggal bi ak jàmm ak salaam bari na ñu génn di wax wala lu ko jiitu sax am na ñu génn di wax lu nekk ñu wax ko ci diggante ñi nga xam ne ñoo yor organisation bi naan teguñu mbir yi ci yoon ak sayar de yi ñu li ñuy financé ci xaalis dafa bari ta Touba bu ñëwee ndox mi manqué yooyu yëpp waa dëkk bi ñu ngi koy dégg waaye ndokk alhamdulilah ñi nga xam ne ay taalibe lañ yaakaar sëñ yaakaar njabootu sëñ ñoom day amuñu soxla ci yooyu duñ ko déglu duñ ko gis duñ ko xool tey lañ gën a doon taalibe tey lañ gën a mën a yëkkati seen alal ak seenu ñàkk jox ko njabootu sëñ tey lañ gën a nekk ay nit ñu nangoo liggéeyal sëriñ bi ak njabootam kon bokki nañ dellu ci xel yi te xam ne solo te sëriñ bi dëkkam bi da ko sant da ko sampu da sant ci ngir l'islam l'islam nak li jur ak li kufri lepp jamm la ak salam kon képp ku fi nek ta man fee nek ci jamm ak salam war nga fee mën tok ci jamm jàmm yàlla liggéey toppatoo sax njaboot top ci ndigal suñu borom yi bay ay ndax sëriñ bi loolu la sampé dëkk bi ci loolu la nekkoo képp koo xamante ni bii nag gis nga ne yow dëkk bii néexu la wala boog borom dëkk bi néexu la wala boog ay bokkam néexuñ la ngelaw yow am na foo jógee woon ñëw fi am na it yeneen gox yoo xamante ni mën nga faa dem suuf sa nga mën faa ci jàmm ak kenn dara kon kay ngel la toog ngir yàlla bàyyi ñi nga xamante ni bi ñoom nii dëkk bi mel neex na leen ni do ni dëkk bi doxee neex na leen te it dëkk bi neex na leen. ñu tok feeg mom ci jamm ak salam waye ndox mi manki na kenn ku nekk di wax lu ne waaye dugg ci tay di gis ngeen waaji nga xamanteni bi mom lañu jàpp mu dem fi ci forage bi dal di dindi ci way fat ko ngir bañ yenen gox doxani ci des am ndox loolu euh ah, sun borom tey leeral na ko melni koku boo ko xoolee ci yeneen quartier yi ci des yëpp da nga koy gis tey Touba gii maanaam satisfaire leen ci wàllu dund ak wàllu ndox lu jafe la ndax li fi dajee daanaka mën naa leen adduna ñoo fi dajee bis boo xamante ni bii benn gis la ci àdduna bi amul ku dama koy def ci samedi bi kenn ci dimanche bi laa koy def wala kii ne ci lundi bi laa koy def kii ne ci mardi bi laa koy def lépp ci benn bis lañ doon muy 18 safar 18 safar ni ko waa Sénégal li fii. noonu la ko waa Australie di defe ak Australie li muy sori sori noonu la ko waa Abidjan di defee ak li Abidjan di jege jege noonu la ko waa Mali di defee ak li waa Mali di jege jege noonu la ko fépp fu doomu aadama mën a nekk ci kaw suuf di defee benn bis la bokkul sax ak gàmmu ndax gàmmu da ngay dégg ku ne man ci bis bii laa koy def kenn man ci bis bii laa koy def kon benn bis la boo xamante ni bii. fenn lay xewee ñi des ñëpp topp ci seen ginnaaw muy benn bis muy 18 safar ñu amal ko ci alxames jii di jàll. adduna na dayee fi dëkk bu mel noonu ak ni toll ci habitat ak réew mii di Sénégal ni mu ni mu toll suñu fi dajee ñëpp mënuñoo maase amul ndox faw lii day mat fii lii manqué fii kon nag bokk yi nañu delloo si xel yi te. maanaam di dalal xol yi te ànd te yàlla tax te yéenante jàmm te bàyyi yenn critiques yi ak yenn wax yi di ko jumale nag surtout ci njabootu Serigne Touba ndax Serigne Touba moom ñoom ñemewuñ ko xam nañ ne lu ko waay wax ci àddina ala kulli bi léegi balaa daraa xew danga ko dañ ci teg sa bopp waaye nag njabootu Serigne bi lenn lu nekk ñu dana ko ci wax lenn lu nekk ñu dana ko ci def dégg naa benn waay boo xam ne. amul lu mu waxul ci ku sant Mbàkke rek moom ñi sant Mbàkke lay wax bañ na ko sax ba day jël sant bi di ko jël ci di ko fël ci yeneen i sant adduna bi nag tollugul foofu dafa am loo xamante ni bii nit soo gëmee yàlla tey nangu dogalu suñu borom danga war a moytu ak tooñ ndax ab jullit waroo xool sa mbokkum jullit di ko tooñ ak maandu daal war na suñu diggante dañuy booloo nekk benn topp ci ndigali suñu borom yi bàyyi ay dërëm te xam ne adduna bii lépp loo gis day jeex ana ñi fi newoon ana ñi daan organiser ana ñi nga xamante ñoo ñu fi jiitu woon ñun ñëpp dem nañ kon ñun ñi fi des nañ ko rafetal te bañ topp suñu bopp topp suñu bakkan yi leen li may tëjee nag mooy lii nga xamante ni bi moo xew ki ko def benn jàngat rek laa ci am mooy damaa wax ne am na ñoo xamante ni bii nii tubaab yi gëmee ne lislaam euh, yàlla amut yow man xiyam amut suñu borom exigé wul malaayika yi amuñu comme ñoom ñuy weddee am na fii ci biir senegal ak ci feneen furul senegal ñoo xamante ni bii dañu ne ay jullit lañ ba noppi parce que gëm-gëm yooyu nekk ci tubaab yi nekk ci ñoom loolu moom lay tëjee. loolu yëpp nañ ci bàyyi xel ndax képp koo xamante ni bii sa intérêt yi bopp ak sa bëgg-bëgg bopp moo tax yow nga def li nga def ah man damay mën a jàpp na yow yow fi nga teg aduna wax dëgg yàlla aduna àggul foofu rawatina na nga ne ab julit nga rawatina nga ngay mbubboon yow taalibe nga kon bokk julit yi bokk taalibe yi foofu laay wàcce sama kàddu maa ngi jéggalu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu